axusubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan wala wu yaxsimuka mina naas ya allah barke borom Touba ah, ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi sëriñ Touba Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di siyaare sunu jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi jiite jumaa ji muy daayira Muxadamaatu Xidma sëriñ Yaafi bu sal imaam tey jii yàlla dogal na ñoo ngi teew ci kanamam ah, Euh, jàmbaar yi nga xam ne ku leen xam-xam leen ci jumaay sëñ Touba ji muy waa Touba Bilbao Bilbao nag benn dun la boo xam ne province la boo xam ne bu yaatu la ci Espagne euh, ñu ànd ak sëñ Massamba Ndiaye mi ngi nii toog euh, nga xam ne duñ ne gunet at mu nekk rek nii rek lañ daan def ak jumaay sëriñ Touba ji yàlla dogal na tamit liggéey bi nga xam ne dañ ko saxalal jumaa ji euh, kenn ko ne xam na ne ci jamono ji nga xam ne sax moo am ci pandémie bi ci ñaari at yi moo tax sax ni mu demee mu demee ko waaye Bilbao mooy dëkk bi nga xam ne euh, ñoom dañoo waajal jumaay sëñ Tuubaa ji ba koor gi bu ñëwee euh, million bi jiitu ci ndugg yi ñoom ñoo ko daan joxe amul benn koor boo xam bu ñëwee woon ma na ma sëñ Assane dajale nañ mille cinq cent nangam euro ngir tàmbalee ko seenu liggéey mu jëm ci ndogu yi noonu itam lañ ànd ci matériel yi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji muy bépp mote muy oto bu ñuy jënd wala lu jëm ci wàllu communication muy luxel yi ñuy jënd fii wala Macintosh yi wala lépp luy matériel euh, mixage vidéo fépp fu fépp luñ soxlaa rek buñ ci wootee Bilbao moom bokk na ci ñiy ñëw ànd ko waa Espagne yëpp nag bàyyiwuñu kenn euh, tey jii tam euh, ñu saxal nag loo xam ne ñoom ñoo ko saxalaat ci seen bërëb liggéey ngir waxtu wu ñu màggalee ba noppi ci biir màggal gi ñoom danañ woote lu jëm ci social boo xam dañ koy indil jumaa ji tey jii tam indi nañ fi téeméeri junni jébbal ko sëriñ Afia bu Sall imaam kon sëñ Massamba jëriñ ngeen jëf ñoo jëlaat kaddu yi cant ngërëm yi bàyyi ko sëriñ Afia teg ko ci sa loxo nga jàllaleel na ko ci mboolem taalibey sëriñ Tuubaa yëpp nag bàyyiwuñu kenn fu waay nekk Espagne bi réew bitim réew waaye nag waa Bilbao baawo nga xam ñoo jëf jëf ji. nga tegal na ko ci loxol sëñ Mamadou Ndiaye mii jëwriñ ji ànd koog sëñ Fallou Dieng mi nga xam mooy coordinateur général bi sëñ Mor Camara sëñ Abdou Ndiaye bàyyiwuñu kenn liggéey boobu tam sëriñ Afia sant na leen ci gërëm na leen ci gën na noo dollikuwaat yaakaar ci yéen it ndax daayira bi tam euh, jamono bii ñu toll taxaw na ci woote sociale boo xam ne dañ koy saxal weer wu nekk ndax àdduna bépp ñu ngi jàpp ci liggéey bi te ñi ci ñi ñi ñi ñi dégg woote bi te wësi ñi ngi ciy jàpp waaye ni ngi ciy jàppe nag mooy koor képp la ñuy jàpp ak màggal koor ak màggal te bu dul koor ak màggal li des ci liggéey bi liggéey bu rëy rëy la ak gàmmu euh, ndax social bi nga xam ne mooy war a taxaw waa jumaa ji ci mbooloo mu takk mi nga xam ñi ngi fi nekk loolee itam daayira bi da ci fas yéene wowaat àdduna bépp ci weer wu ci nekk bépp sellil muxaddamaatu xidma bu nekk ci bitim réew mën a fexe ba maanaam wuy suñu ci woote boobu nga xam ñoo ngi koy woote ngir mu jëm ci liggéey bi kon daal sëñ sàmba dañ lay jox kàddu yi nga nga nga nga nga nga nga nga xam ne moo bàyyi ko ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo la yebal waaye daal ñu seegal la daal jëf ji agsi na te dem na ci fi nga xam ne moo ko taxoon a jot te it fii nag moom wax na ne moom bëgg a liggéey taxoon nga liggéey ci bari la taxoon nga liggéey ci Seexul Xaddim mooy seet kam tànn liggéey loo ko kon da leen war na yéen seen jëf sëñ Tuubaa tànn na ko te def na ko fi ko gënal kon yàlla na ngeen ko yàgg jëf ci barke borom liggéey bi kon ma Massamba ñu jox na kàddu yooyu rek nga soññee ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah seen ndongale Massamba Ndiaye moo leen di nuyu di leen sant te di leen siyaara di leen baal àq te di leen baalu te ñaan suñu borom boole ñu jégal day ñaan sama kàddu yi fekk leen si jàmm ak salaam di leen siyaar bu baax a baax di sant sama mbokk yi nekk ci Touba Bilbao tàmbalee ko ci jawriñ ji sëriñ du Ndiaye ak kordinateer général sëriñ Fallou ja ànd koog sëñ Abdou njaay ak sa Ndiaga Cissé ak mbooleem ñan ko àndal rek ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk ak tawféex te di ko ñaanal mbooleem jullit ñi te di leen xamal ne addiya ji yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko ci sëñ bi sëñ bi sant nañ bu baax a baax te it am nañ ci xel mu dal lool ba kawe njor waaw am nañ ci xel mu dal sëñ bi sant na bu baax a baax ñaanal nañ yàlla nañ ko yàgg indi te yàgg ko fee fekk ci at yu bare bare bare ànd ko mboolem taalibe yi ci bark Sëriñ Tuubaa li ci dolli ki mooy xanaa ñu gën a góor góorgóorlu rek gën a waat te xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la am amul tànk ginnaaw bu ko defee ñu gën a laax saay waar rek fas yéene góorgóorlu rek ci liñ doon góorgóorlu ñu fas ko yéene yokk te ñu pexe ba bañ a del bokk ci ñuy jëm ginnaaw incha allah ndax liggéeyu Serigne Touba moom bari góob bu nu teg ci mbartal la ku puus mu dem ku puusul mu dem kon nag nañ ci jàpp nañ ci nekk nekk gi nag mooy lii nga xam ne at yu baree bari ñu ngi ko doon di ko di ko indi ci sëñ bi mu jëm ci jumaa ji nga xam ne bi ñu ko tàmbalee léegi mi ngi ci fukki at ak yu tegal te sëñ bi bég na ci lool te it dadi di sax mënta ñàkk waaye nag lu ci waaye def rek sa bopp nga ko ci defal boo ko defee ñu fas ci yéene gën a góorgóorlu ci addiya ji nga xam ne dañ ko daan indi ci weeru koor gi nga xam ne sëñ bi seeral nañu ko ne maa bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ci gën a ñoo ñoo ci gën a kawe ci ñoo ci gën a jàmbaare daal ci gàttal ñoo ci gën a jàmbaare gan nit nag bu fekkee da nga ànd ko mbooloo di liggéey ñun la yow mi yaa ci gën a jàmbaare maanaam loolu da nga ci sant yàlla nag waaye bu loolu lépp wéyee maanaam da nga koy def muy ak laxasaay ñu def ko suñu laxasaay fas yéene nag mu gën a jëm kanam rek te bañ ceeggi suñu bopp yàlla nañu suñu borom defal ñu ci tawféex ñu saa su ne ñu di ko gën a jekku ak bu ko defee tamit am na adiya junni faral bu bu bu ko defee tamit maanaam loolu ñu indi ci weeru koor wi ak buñ gën buñ màggalee ba noppi loolu ñuy indi ñu gën cee góorgóorlu baax a baax a baax gën cee dox gën cee dox baax a baax te ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex ju kawe kawe kawe ci barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen ci soññ di ci soññ suñu bopp di ci soññ mbooloom taalibe yi nekk ci bil Bilbao ak li ko wër ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax te di leen ci gërëm waaleykum salaam wa rahmatullah jërë ngeen jëf waaw jërëjëf sëñ Massamba kàddu yi mat na sëkk xanaa rek di la dolli jaa jëfalaat di la yóbbantewaat ci mboolem waa Touba Promesse bépp muy baawo ñëpp lañ ci woon nag ndax ab liggéey moom euh, boo koy liggéeyal seexul xaddim ñu ngi koy liggéeyal bàyyi ko xel ba bu waxtu jubee ñu sentul la kon nag dañuy ñaan cekku ndigal li suñu borom defal leen am gàttandu noonu la siyaare nag waa Touba Espagne yëpp bàyyiwuñu président fédération sëñ Mbacke Ndiaye euh, ak sëñ Adi Touré jëwriñ euh, bàyyi daam Lo mi nga xam mooy coordinateur général euh, ak sëñ El Hadj Abdou Ndiaye ak sëñ Abdou Sari bàyyiwuñu kenn sëñ Mourtada Mbidou ak fu waay ne rek ci biir Espagne ñoo ngi lay ziar te di la wax xamal ne social bi nga xam ne tam Bilbao mi ngi koy def ginnaaw màggal mu takk lu lim indi ko koor gi mu indi ko loolu tamit woo nañ ci ñëpp. soññee bin soññee woon démb itam ci matériel bi ñun ñëpp dégg nañ ko muy tàpp yi nga xam ne indi nañ ko fi ci jumaa ji te soxlaal ko lu jëm ci ay entretien muy ay machine lavage ak ay machine aspirateur yu jëm ci li koy setal loolu tam woote nañ ci woo ci àdduna bépp kon képp ku ko dégg rek nga xam ne woote boobu woo nañ la ci si yëpp laat maamasta leeral na ko lu jëm ci ay échelle électrique itam woote nañ ci lu jëm ci camion ndoxit boo xam ne day doon camion boo xam ne ndax diggante ñaari barab yi léeg-léeg ndox day manqué loolu tam soxla nañ ko woote nañ tamit ci camion mbalit boo xam day wër li day jël mbalit yi wër urumu jumaa ji loolu tam woote nañ ci eh, woote boobu nag yàlla nañ ko dégg yàlla nañ bokk ci ñi Sëñ Tuubaa di liggéey loo kon yàlla yàlla nañ ci dajewaat ay déwéni dem ci barki waqi daa waaye jële si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li si na saarahon li xidmati falaw mu diyaara wasal jannati jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati